wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa eh, nañ ak yéen comme niñ ko baaxoo di defee ci bind koor gi eh, ca tàmbali ko ak yéen ci ngeneelu koor yi bu defee incha allah ñu sof foofu rek jàll ci tey ñu ñëw ci lan mooy dëgg-dëgg koor ak koor moomu sax ci nan lay saxe bi maanaam lu jëm ci wàllum séntu weer ak yooyu jullit bi nan lay xamee ni weer wi feeñ na ak nan lay xamee ni weer wi feeñ engagé na ko pour mu woor ko bu ko wóorul mën a ci am daanu daanub yàlla mbokk yi koor njëkk lislaam di ñëw mais as saw mu ko jëfandikoo waaye bu ko daan masaan jëfandikoo rek eh, suñ ci daan jublu mooy bàyyi dara misaal bu fekkee waxoo in nadartu sawma falan ukallima yawma insiya bu fekkee ne waxoo eh, mën sumtu anil kalaam man tey jii moom damaa damaa woor mu wax comme ni ko suñu Sayyidatuna suñu sang Sayyidatuna Mariama defe woon waaw kon koor buñ ko masaan wax bu njëkk mooy bàyyi dara woor bi lislaam ñëwee nag da koo jël jagleel kay mbir mbir yooyu mooy nit ki bu fajar jotee ba keroog jant bi di so mu bàyyi mboolem loo xam ni eh, biiram dañ ci bànneexu mboolem loo xam ni payam dañ ci bànneexu ci diir boobu ñu wax waaye bu fekkee ni fajar jot na ba keroog jant bi di fenk kon loolu mooy koor ci lislaam mooy nit ki bàyyi lekk ak naan ak lépp lu yàqu koor la ko dalee bu fajar jotee ba keroog timis du jot te nañ ko waxe woon te bind bee jàll euh, wooru weeru koor moom ponk la ci ponk lislaam yaa xam ne nit ki ak lislaamam lislaamam lu mën a mat ci lu dut mu ko yittewoo waaye nag dana baax ñu jàngat tey koor ci nan lay saxe nan lay saxee bi maanaam bu nekkee ci mujjantalu Sha'baan bu koor war a dugg bu nekkee ci mujjantalu baraxlu bu koor war a dugg nan la xamee ni koor war naa dugg mbokk yi eh, koor mën naa saxee benn ci ñeent mbir yi di ñëw ci tënk suñ ko tënk rek daanaka mën naa dugg ci ñeenti mbir yooyu ba njëkk mooy weeru baraxlu wiñ nekk mat fanweer fan bu matee fanweer fan moom amatul wax xam na ni weer weeru olof olof du weesu fanweer fan kon baraxlu bu matee fanweeri fan moom la ci topp mooy weeru kon loolu moom bokk ci moo ci gën a yomb bi ci toppaat mbokk yi mooy ñaan yu maandu gis ko ñaan yu maandu jëm kaw ñaan yu maandu jëm kaw ñett ñeent ci ñu leer ñi ñu maandu lañ euh, te ku maandu suñ ko waxee mooy koo xam ni mbooleem bàkkaar yu yu mag yi da koy bàyyi te bàkkaar yi ndaw yi tamit yi ci ëpp da koy bàyyi eh, la ko waykat bi doon waxee naan alaatlu man yajtanibul kabaira wa yattaqi fi adabi sawaira ah, mooy koo xam ni mboolem bàkkaar yu mag yi da koy bàyyi waaye bàkkaar yu ndaw yi dana ci lu man donte nag nit ma tut léeg dara mën na ko ce gaar waaye doo ko ci gaar rek day delluwaat ci suñu borom comme ni ko suñu borom tamit ñi nga xam ne ñoo gëm léeg-léeg seetaane mën na leen a ñëw di leen jax-jaxal waaye su leen seetaan jax-jaxalee dañuy fàttaliku ko suñ borom daal di dellu ci lañ nekkoon ku maandu kii nii euh, bu fekkee ne am na moroom nga xam ne ñaar ñu maandu ñëw nañ wala ñett jëm kaw nettali ko de war ci julli bi mu daal woor kon bépp jullit boo xam ne ñaari maanu wax nañ la ne gis nañ gis nañ weer wi deewaat ci jullit bi yow nga daal nga daal di woor ci kon doo ko sañ a bàyyi ndax ñaari maanu wax nañ la ko ba ci toppaat mooy bu fekkee ni am mbooloo moo xam ni mënuñoo dajee ci nar ñëw nañ wax la ko mbooloo mun ci dajee ci nar ñëw na la gis nañ weer wi kenn nettalu ko kenn nettalu ko ko ci ñoom dajaloo complot ngir nett ko kon loolu day tegtali lu wér la ndax bu wérul woon kee du mën a jógee fere kele jógee fere kele fere ku nekk na la gis naa ko ci xëy na sax yëguwut ak euh, moroomam ci mboolem yi moom kenn ci sart ak maandu bu fekkee mën na mbooloo jëm kaw jëm kaw mu gën a bari bari su xasee ba mat mbooloo rek jëm kaw lu mu bari bari kenn di ci sart ak maandu comme que mbooloo gis na ko rek kon koor mën na cee Euh, saxe wala kumaandu daal koy tuxalee ci li am mbooloo kumaandu daal koy toxale ci am mbooloo kon bu waar ba tey tamit koor dañuy saxe léegi nag mu am luñ ñu war a bàyyi xel muy léeg-léeg nga gis ku nekk ci réew mi koor jot mu mu ni moom du woor ci Sénégal waaye meneen réew lay àndal wala sax li gën a mu ni moom daal li ko concerne ci woor mooy fu weeru feeñee rek lay woor moo xam Sénégal li moo xam Mali moo xam fu mën doon moom daal fu mu feeñee rek lay woor waaye léegi sart sartu ci mu nekk Sénégal doo am ci ñoo xam ne nag dañ naan la ñun moom suñu réew la ñuy topp suñu réew moom saa yu weer feeñee ñu woor waaye bu feeñ ñu woor euh, mbokk yi ci lii am na ci ñaari jàngale ci jàngale borom xam-xam yi li ñuy tuddee wahdatul mataali ak li ñuy tuddee ixtilaaful mataali wahdatul mataali mooy dafa am ñu ci borom xam-xam yi te mooy ñu ëpp ne weer yi benn la fu weer mën feeñee ci àdduna bi dee ci julli ñëpp ñu woor jullit bu ko yëg rek te mu leer na la feeñ na sax na ci benn ci ñeent yi ñu waxoon saxee na ci day war ci yow julli bi nga daal di woor te ñii wax naa ne mooy ñi ëpp am ñu ni déedéet ñoom moom liñ gis mooy gox bu nekk dañoo am seen gis si bopp misaal wet gi nga xam ne bokk jant ñoom man ñoo am bopp geneen wet gi xam ne ñoo bokk jant ñoom ñu am seen gis si bopp ñu gis nag ñaari wax yi ñaar yëpp dëgër donte bu njëkk sax moo gën a moo gën a bari waaye wax ji tamit dafa nekk lu dëgër loo xam ni eh, am na xadis walla asar yoo xam ne ñëw na junj ko waaye tamit eh, bu ñemee ci biir lislaam dañuy fekk ni yu mel noonu baaxoo naa am kon képp koo xam ne jàpp na benn ci ñaar yi lam jàpp charia dana ko nangu incha allah taala ndax lam jàpp nekkut loo xam ne ci tàndatu loo ko teg nekkul loo xam ne tamit ci palant ko teg nekkul loo xam ne ci parpar la ko teg waaye da koo teg ci eh, sukkandikuwaaye xam-xam bu dëgër ci lislaam rek lépp loo xam ne yaa ngi koy def ci diine ji am ci sukkandikaay bu dëgër lislaam loola dana la ko nangul kon ci gàttal eh, ngir mbokk yi gën a jegante eh, wàññi tamit yenn xuloo yi nga xam ne mooy faral di am ci waxtu yi nañ xam ni ñaari déggin yooyu ak yeneen déggin yi nga xam ne jege na ko dañuy bañ a guddal sax na ci lislaam ca bu ci nekk ay borom xam-xam yu mag a mag ña ca saxal ko kon yow mi nekk Sénégal nag bu weer euh, feeñee Sénégal moo woor bu feeñee feneen fuddi Sénégal tamit moo woor euh, ci la nga def nga sukkandiku ko ci mësa ba njëkkoon wax euh, école wala jàngale mi njëkkoon njëkkoon wax loolu lislaam du nangu la te boo demee tamit da nga fekk ay borom xam-xam yoo xam ñi nga xam ne tamit dañoo gis ni ñoom gox bu nekk dañoo war a am seen gisu bopp ñooñu tamit lañ gis lu saxla ci lislaam euh, ca lislaam nag baax baaxoo naa am xeetu wuute yu demee nii kon yow mbokk mi nga xam ne ngaa jàpp benn ci ci gis-gis boo xam ne wuute na ak sa moroom bul ko ci xas waaye tamit bul ko ci ŋaañ ndax xas gi koy xas wala ŋaañi gi koy ŋaañi mën naa yóbbu sa tiyaabe yi nga xam ne moo nga amoon ci weeru koor ndax mën naa nekkee ñaawteef yoo xam ne xëy na ëllëg da nga koy da ko da nga sa moroom bu fekkee jéggul la ko euh, ci ñoo xam ne rek yu mel nii boo bokkoon na ci li nga xam ne moo koy gën a euh, faxas gën koo wàññi ba du am julli ñi di faral di diisoo ci demee noonu rawatina bu fekkoon am nañ benn xeet conseil supérieur bu mag boo xam ne eh, borom xam-xam yi nekk ci dëkk bi ñëpp lay dajale eh, mu bañ a yem ci koor kese waaye tamit lépp loo xam ne lu soxal diine ji la ñoom ñoo ci wax waaye képp koo xam ne ku war a wax ci diine la ñoom ñoo ñëw bay certifié la yow mi ngaa wax ci diine loolu bu ñu ko defoon lu bari bari daan wàññeeku ci koor bi xula yi ci am daan wàññeeku kooriteeg tabaskeeg na ko noonu tamit yenn eh, masala wala yenn atte diine yi nga xam ne moo lañu wax ci yenn rajo ak télé yi te muy nekk lu juyóog diine loolu lépp dana wàññeeku ndax kon boobaa diine dana am euh, ñu ko waggar ñoo xam ne lépp lu jógee ci ñoom rek ñu xam ne lu wér la waaye tamit kenn du sañ wax ci turu ci lu di ñoom ñu la ciy jox ndigal te boo demee ci réew yi si réew yu bëree bëri daanaka noonu la doxale kon euh, jot na Sénégal ñu toll foofu ca bàyyi ñu jug rek mbeddeeku ba génnee seen xalaat ci diine ci amaana sax amuñ ahliya wala capacité boo xam ne leen leen may ñu mën a beroog seen xalaat kon mbokk yi ci gàttal lii mooy bind bi nga xam ne moom lañ indi woon tey ci koor ni mi muy saxee ci julli bi di ñaan mboolem luñ def ci koor ci jaamu yàlla suñu borom nangu ñu ko ci làq ñu ko fi yàq àggul te mboolem rëcc rëcc yoo xam ne tamit am nañ ko mu jéggal ñu ko te fulal ñu ko def ñu koy yiw wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin فضلا عظيما قد يديم الفيضان يقود مولد النبي لرمضان فضلا عظيما قد يديم الفيضان